yëpp génn nekk ci ginnaawam di ko pousser vers la victoire ngeen gis ni nga xamante ne teewoon nañ fi ténéru parcelle yëpp espoir parcelle yëpp ñëwoon nañ teewe ko jàppale ko ci bés bu nga xamante moom la dëgmal le 19 juin incha allahu rabbi fii ci arène nationale bi à domicile ni ko gars yi di waxee waaw suñu père a ngi xarit waaw Abdou Ba mu xam ko waaw borom yokk cere doolu ñeex maa ngi bu baax di la ziar. waaw général Lamine fay bu baax. Ah, di la ñaanal yow itam euh, seen site bi nekk ci site yi gën a mag ci àdduna bi ñu ngi lay ñaanal kàttanu yàlla lépp loo xam ne nii rek. écurie Parcelles euh, yéen a ko doxal ci làmb daal mhm. sunu xel sedd na ñoo ngi ñaan yàlla daal yàlla may leen tawféex may leen wér may leen li nga xam ne itam mooy émettre ñi émettre ci àdduna bi yéen ngeen bokk ci ñu gën a waaye daal ñoo yëg ngeen foo xam ne fii ñun ñi miin nañu ko ndax fii lañ day fii lañ doon entraîné bi biñu nekk temps booyi maa la wax lii kon barab bi daal ah barab bi am na lu ma fàttali la géej gi dawul daayoo a dawul du bouger la kulli abadan man baax doo Ah. maa la ko wax kenn rek a dandaloon géej dëkk kenn rek a juri ci biir géej waaye daal li wér te wër mooy nii lay mel ba abadan waaw kon nag dañuy sant rek tey xaar daal ah, question yi ñu ñu dugg ci kàtt macha allah am na solo deux cent pour cent ngeen bi muy nekk première sortie bi ndax cent pour cent doon am waaw non xam nga slogan euh, euh, euh, ba ñëw noonu rek mais deux cent pour cent bu ñu ko waxee dañuy bañ rek ñu xool ne comme ñun dañoo def 100 pour cent ñëpp di toppandoo nay indi kenn ku ne indi 100 pour cent parce que Eumeu Sène bi muy nekk roi des arènes dafa fekk gars yi nekk 100 pour cent ñoom ñee am na ñoo xam ne daje nañu ay tournoi Modou Lô ak Modou Lô ak euh, Papa Sow dajewuñu tournoi bëriwuñu est-ce que boobu 100 pour cent moo fi am ñun tournoi mosuñoo boole dañu xool leneen ñun ci ñoom lañu ñu ci loolu lañu yore la preuve mooy Parcelles Assainies seen làmb nag wax dëgg yàlla fii la jógee. fii la juddoo. waaw bu jógee ci ci ci tamit. non non ñu dara Modou nee ngeen ko def sax cinquante mooy wax ni ñuy def ak yooyu muy xale tam yooyu Modou la daa war a mën a xam cinquante pour cent mooy lan deux cent nga naan muy xanaa ba. wala li muy xalaat moom moom nag mën na ma yàlla baal baal làmb da koo xa a raw daal moom fi mu ne nii làmb da koo raw fi mu nekk nii. làmb dafa gis naa mu wat sikkim bi de mais xanaa yow yaa ko mu <laughs> <laughs> ndeysaan. <laughs> waaye mais nag moom la de gis nga démb entraînement bi mu yi ñu am nañu ko dugal yi nañu ko yóbbu. certificat dirigeant yi ñu am nañu dem déposé ji ko fële. seen seen tam bëre ji. certificat médical yi nga xam ne ñu gañu ko lay gune ñu gas xam fu ñu jëlee këyit for ci mbedd mi ñu def certificat médical nañu bàyyi yooyu ñuy def. te dem ah, waaw waaw ay sem dañu bàyyi yooyu daal bàyyi yooyu làmb nit ñi dañoo bëgg làmb Sénégal dañoo bëgg làmb rek la ñu yàq ñëw ci làmb ji xuus ci biir nit ñi toj seen bopp ak Euh, na ma tu vois am na yoo xam ne yi daal yàq làmb la daal nañu bàyyi yooyu daal oh. nañu yàq yooyu yàq la. yaa ngi tooñ de waaw. non du loolu sax mais ñun combat boo xam ne bii avorté foofu noonu du yoon. combat bu ñëw bañ naa ñetti fan ak ñetti fukki fan ci des ak ñett euh, yow nga ne da nga ne roi des nga xëy suba tee taxaw naa ma ñoo ngi ci ginnaaw ak ñetti moom xanaa kon Franc gën a ñeme. ku toj boobu nag moom. xam naa ne non papa sa waaw ah non papa moom xam nga booy bu yaru la quoi combat bi mu yàqoo métti na ñëpp. Modou tamit yaru Modou moom Modou am na mën naa nekk ah. ah ah xaw ma ngalañ xaw ma daal xaw ma du loo ma ngalañ loo xaw ma je ne eh, <laughs> la nag guerrier la nag vraiment. guerrier la moom li day wax lu ko neex rek moom mës naa daan mbër ci jiir di ay deux di di di ay di ay deux secondes ak trois secondes loolu mës naa am. ah mais door na fi mbër mu daal. ah moom itam door nañu ko fa moom door ko fa mu tam mu sàng ay loxoom de. door ko mën na pëccet daw. ñu ñëw xar ko daan ko jël boo xam ne mos gëj damaa gis sax mbërum ñu daane ko noonu ay itam ki la fee sa bopp samp la buddi la say tànk njutal la samp la bu wet la loolu dafa ñaaw sax ci mbër ñetti defet rek la ah ñetti defet yal na moom kay yal na bu ñu am ñetti defet ñun suñuy defet yal na fi yem ñun yàlla bu ñu kenn yàlla bu kenn daanati kenn hmm. dañ ñaan yàlla yàlla bu kenn daanati fii kenn lépp lu am yàlla na nekk ay ndam ñun loolay ñaan waa Pikine. waaw mais est-ce ko non waaw xam nga ne moom waaw ab qualité fonk nag qualité Tapha ndax contact yi ñu France doon nañu ko seetaan de. Euh, xaw na ko da ko daan xaw a rey moo tax. am naa loo tax fonk a ah, yow itam. Franc yow itam. waaw kuy daan daanoo loolu. waaw kuy daan moo la ah mais quand même daa mën a daan Pakola sax moom soq euh, kii moom moom ba kii la. déedéet. Franc Franc nag Pakola. dañoo Pokola de sotti na ko génn barki dem ñu daje fii arène eh barki dem dañu eh, arène nationale Pokola dóor ko mu wàcc nga naan kii. ban la ko dóoree. fii arène nationale. nga naan dóor mu mun a mu sedd. te fekk nañu bëri ba ban. bëri saa waaw loo xam nga daan na kii daan na ko moom na ni masu su koo daan ci kattanu yàlla ñun dinañ ko daan. loolu la ñuy ñaan dañ ñaan bés ba su le 19 yàlla ànd ñun ñu daan ko jël bu ñu neex. Ah. waaw loolu la ñu bëgg. danañ appel la 30 secondes. non waxi loolu loolu loolu waxi caaxaan la rek wax soq mi kanam gi naan naa la daan ci 2 secondes ak 3 secondes. Pikine yëpp ëmb la nga xam dañ laa war a dóor nga sedd nga na dañ naa daan war a kii xanaa ñun bu ñu toppee dañ ko dóor mu sedd moom moom moom Franc. waaw itam li mu daan Tyson Tyson 2 jël bi mu daan Tyson 2 c'est pas euh, valable. valable na ko non non ku inauguré ko dóor. ci loos la ko dóor non ah. itam man. waaw ah. xam naa li ma la wax itam. loolu dañ ko war a dindi non non loolu du victoire. victoire wax ma leneen non non non non non non non moom xam na ko sax moom. xam ne li ma ko wax moom wax naa ko waa CNG nee naa leen coup régulier la ko dóor c'est pas sérieux waaw non mais boobu jaralu ko rek xam na ne Tyson 2 da koo mag ci làmb gën na koo xam xam na li xam na ne moom du dara mën na koo boot di bëree bokk ñoom ñaar. Hmm. soq nag mën ndax mën na koo boot di bëree. ah si xaaral ba ci bés ba rek nga xool. Hmm. a ah, xool bàyyi ba soq ñëw xam naa gisagoo soq soq moo tax. gis naa ko laful cat laf cat. yal na ko yàlla lafal cat ci kattanu yàlla. waaw bu soobee yàlla nee na dem na. naa ñun mu waaw yow. Modou Lo man Modou Lo xanaa mbagg mi beneen mbagg bi dañu ko war a opéré waat la xaw ma mën naa entraîner kenn. ndër la. ah moom beneen mbagg nee na mbagg bi day metti wala déggoo loolu. ah dañu koy nëbb ko ah dañoo bëgg a mais daal. ñu ne daal information la de. ndigale jëkk a mbagg ba fee ñu ne oom xaw ma beneen leneen leneen wax na daal. certificat de dirigeant nañ yóbbu daal certificat de dirigeant yi ñooñu moom moom ak gars yi daal nañu yóbbu certificat de dirigeant yeneen boy yi ah, waaw kon kay yow nangu nga mu dafa blessé ah, ah, ma weddi docteur. mais am naa sama ngëm-ngëmu bopp man. pourtant dalal na xelu nit ñi de. na moom dara d' accord loolu lépp mën na dara xanaa kon dara ko daal doon dara loo xam ne lii loolu yow mas ngaa rey xar. dama ko néeg boo reyee xar ba pare jël tànk ba dagg tëddi digga damm tànk bi. gis nga ligament boobu nekk ci diggante ñaari yax yi. loolu bu tuuroo kenn mënu ko cee benn tubaab bi sax mënu koo. loolu caaxaan ma dul ko de nga ñu naan fukki fan ak juróom nga wér waxi caaxaan la. na dem bëri ji moo gën tane na gisoo de ko protéger dem tane waaw protéger lan. yéen xam naa da leen a rek moo tax mu kii ko waaye bu nekkee néegam. di def yëfu boppam du ko takk de. kii <laughs> man de baaxul man na ma. takk may boppam koy ah, xam na ko. te ko koy ñaanal bu dee daal daa feebar yàlla na wér mu ñëw rek ñu bëri si ci kàttanu yàlla may ñu ndam loolu la ñuy ñaan daal loolu la ñu ñaan waaw. moom kan. te man kay moom wax dëgg yàlla. séen naa ko nii rek njaago bi séen naa ko nii rek mu moog njaago bi toog. ñoom kenn ku ne wax lu la neex. waaw ah gis non man nag seetaanu ma daw bi de mais toog bi di wax. musol sol mbaxanaam daal laa gis moom njaago bi toog di wax waaw ah, ah, waaw baax na bu dee njaago or baax na ki mu fekk ki mu fekk joolaa la joolaa lay dajel joolaa bi nga naa moo xool yow ki pikin ngàbb indi la sënk nga xam ne waaw dem avant heure bi seen cent pour cent ñëpp teew nañ ñoom si ñëw nañ tey gisaguñ fi kenn loolu la. Ah, ak gaa yi yaa ngi ñëw gaa yaa ngi ñoom ñoom dégal ñëw nañu gaa yëpp ñëw nañu ñu ngi nii. gaa yaa ngi ñëw ah non mbëri ama moom dafa voyagé woon. mais waaw mais kon di nga ko fa gis ne ci kat ah am naa ci yaakaar ndax nee na ma. non 200 pour cent yàgg na fi. gëmante ngeen. non du du ñàkk gëm ñoom ñoo juddoo ci benn bu gox. benn gox lañ juddoo. màgg wuñ jóg a fee ci ginnaaw kaw la xaw ma njaañ ak yu koy ñëw fii de eh, dañoo juddoo fi ñoom voilà booy yi fii dañu juddoo ñoom pour mu leer. Ah. booy yi ñuy wax nii. fii dañu juddoo ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk fu juddoo benn koñ. waaw hmm. ah, par force ñu naan ah xaw ma ko dégg mais xam nga mais daal booy ñoom fi lañ juddoo ñoom man sax xam naa ne Bawol laa juddoo ñëw waaye ñoom booy ñoom fi lañ juddoo de. Hmm. waaw di defar ba mu baax. mais kontaan waaw noonu la Lamine noonu la rek la yow xam nga moom boo ñëwee da nga fi ngay dugg kenn du fa dugg moo tax. ah da da ngaa sopp trop. <laughs> ah loolu sook soq yàgg na fi soq deux heures ba léegi mu ngi fi di liggéey. ah me merci beaucoup.